waaye rawatina ci waxtu wii nga xamante ni Serigne Hamsatu Mbacke moom Serigne Soy bu mi ngi faral di amal guddi àjjuma yi nga xamante ni mi ngi koy amal alxames ju jot tey jii nag mu lay taayee ko li nga xamante ni mooy màggalug Daaru Xuddoos di ko defee fii ci bayti fii ci Daaru Xuddoos mu doon guddi àjjuma goo xamante ni képp koo xamante ni ñëw nga fi rek sa xol sedd na ci jataay bi nga xamante ni gis nga ko fi mbokk yi bi mu ñëwee naka noonu ngeen gis ko noonu mu ñëw jubali ci Cheikh Ahmadul Mokhtar di kilifaam di magam ñu saafonte namante ko mu rafetlu xamante ni moom mooy liggéey bu Serigne Amsatou Mbacké moom Serigne Sow bi nii rek la ñuy wéyee liggéey bi wan leen lépp loo xamante ni ay activité la ci lii nga xamante ni mooy guddi ajjuma moo xam njàngum durus la wala njàngum yëkkati wala njàngum rajo kon nees tuuti kon mbokk yi ñu war leen lépp loo xamante ni xew na fii ci guddi ajjuma bi wartu bi furqaani rabbi al muin malaktu nafsiya wa sahsahtu lain أغسم من دنيا وسادي للجنان وانقاد لي أواولي سفى ولاني الأبرار في أخرايا وانقاد لي بلند عن رافقني إلى الجنان جيمو ولسواي سوزيا رجيمو ترسي عن اللعين والفجار كون بديع العالمين جاري أكرمني البديع بالكتاب وسانني عن جالب العتاب لم ينحني إلى دخول الجنة غير البشارة العليس المنة لم ينحني سجر ولا وعيد وعمري إلى الجنان عيد أقبل يا المسون له حبا ولا إله إلا الله أداني الله وإنه البديع وقادني له بأنواع البديع برأني الخالق من سواه وقادني من لا يرى سرواه كتاب ربي كان لي وكنت له ولله به سكنت ترسي عن الأقدار والمفاسد سلامتي من جالب لفاسد أكرمني الله بذكري وما ليختاره وليقاد ما بها بي الله الكرام الخرام وببقائي النبي سرى عباد ذي الجلال والإكرام لي قلد المرقب الكرام إلا يا قاد الله ما لم يكن ولا يكون أبدا لممكن لا سواسك أبدا في كوني جار البديع عجبا للكون إن الذي من الإله حست غاب عن الكون وفيه فزت دلني الله على الله بلا تغرج وعمري تقبلا خابر يا مال حسادي مزمني أس بلا كسادي وقالي الباقي بي سبورا تجارتي لديه لن تبورا Krishna. لم ينغني ما بان له فجلا ولا إله إلا له يقول لي بالانتهاء زمني من كان لي وليسفى زمني دعوت ربي بلسان عربي بلا نهاية وتاب خربي نزع الإسلام عند خربتي لدى الجزائر منير تربتي نزع لي نور اللسان والكتاب أزمان قدمتي لدى أهل الكتاب تذيل ما ثبت للمسفعين أغنى يميني أنا جن ومدفعين هداني جعلني الله وسيسى لئن إلى سوى أمري حبس المعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سرين بنانا ميغي نوي ñep lepp liñ fa jang ci xasida ak alquran boba ba tay ji neena ko ñep def adiyé cheikh mohammadul mustafa té neena fi ba kéro ñëg ci bis bay lepp li fu way man ci jang ko ci xasida ak alquran ak tuddi yalla ak salatu anabi lepp lu bax lu way defit nako defal ba kéro ñuy wessu bis bi inshallah neena nako ñep sant le Cheikh Ahmadou Mokhtar mi nga xam ni mooy jëwriñu liggéey bi mooy jëwriñu kër gi nee na ko ñëpp it ñaanal mu yàgg fi lool yàgg fi lool te wér lool it tey jekku liggéey bi ñu koy liggéey lool lool nee lu ko ñor la na ko ñëpp sant le bi te ñëpp ñaanal ko ko ñaan gu xóot cant gi nee lu xóot ci moom la lu sori ci moom la na ko ñëpp santal santal te ñaanal ko ko. jégalu ñëpp rek. siyaare sëriñ bi bu baax. nee na mi ngi siyaare sëñ Hamsatu bu baax a baax. ci turu sëriñ Ahmadou Mokhtar. nee na mi ngi koy nuyu di ko siyaare ci turu sëriñ Ahmadou Mokhtar. ak ñim yilif ñëpp nag. nee na ak ñim yilif ñëpp nag. di xamal na mi nga xamal mbooloo mépp nii. fii mu fii mu ñëw këram la. ñu fi fekk ay njabootam lañ nee na ñu ngi fi fekk ñëpp seen njaboot lañ kon dafa génn ci ëttam dugg ci ëttam rek kon sëriñ bi nee na da ngaa génn ci sa ëpp ëtt dugg ci sa ëtt ñëw di ñaanal sa wajur nee na ñëw fii di ñaanal sa wajur loolu rek la nee na loolu yi rek la ñun nag di cëru dongo yi nee na nun nag di cëru dongo yi ñi xamal ñëpp bokk talib yëpp ne nee na ñi nga xamal bokk talib yëpp ni bég nañ ci lool. nee na bég nañ ci lool. ngir lu bari. nee na ngir lu baree bari. li ci jiitu. nee li jiitu ci mbég moom yi. mooy njàngal mi ñuy jàngal euh, taalibe Serigne Touba yi. nee na njàngal mi ñuy jàngal taalibe Serigne Touba yi. xam ni Serigne Touba kenn rek la. xam ni Serigne Touba kenn rek la. ñim njaboote ñëpp it lenn rek la. ñim taalibe yi it ñenn képp leen. loolu lu am solo nee na loolu lu am solo la. ñaareel bi mooy yëg gi mu am. nee na ñaareel bi mooy yëg gi sëñ xam sa am. ak soññe la ci bépp taalibe. nee na ab soññe la ci bépp taalibe. ñëw toog ci sunu biir. nee na ñëw toog ci seen biir. di liggéey liggéey bu toll nii. di liggéey liggéey bu toll nii. lépp nag mënu su koo wax. nee na lépp mënu su koo wax. waaye ñu ngi koy ñaanal. nee na waaye ñu ngi koy ñaanal. yàlla fekk aw fanam. nee na na yàlla fekk aw fana mu gudd lool nee na nag na ko ak wér gunge nee na ak kàttan yi na ko gunge. li mu mbébét ci liggéeyam liggéey maamam bii. nee na li mu mbébét ci liggéeyu maamam bii. yàlla ko ci yàlla defal lu na yàlla na ko ci yàlla defal lu kawe ak njortam. nee na tam ànd koog taalibe yëpp. nee na loolu daal lañ am ci ñaanu taalibe. nee loolu daal lañ am ci ñaanu taalibe. sant ci ñaan yi mu ñaanal sunu. nee di ko sant ci ñaan yi mu ñaanal sunu uh, waajur wi ak sunu maam ji. ñaanal ñaanal ko mbokk yëpp. nee na ñaanal ko mbokk yëpp. ñu ngi koy taatante ci rafet nee na ñu ngi koy taatante ji rafet njort bu baax a baax. sëñ bi nee mi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp.